L'équipe de Carlo Ancelotti, euh, deux défaites consécutives, euh, sept buts encaissés, un but marqué, des amis dans l'histoire du Real Madrid match ba jeex na ñi ànd ak ak ki nga xam ni mooy Luka Modric soriwut ak woon euh, pitax yoo xam ni euh, dañoo tawte ndax match bi ni ñu ko gisee kar Carlo Ancelotti bu gaa ñi teelu te def ay pexe euh, dana yàq équipe bi yaxeet ndax gis naa ni remplaçant yi ak lépp ak dugg bee génn bi loolee amul woon fenn foo xam ni jaar na fa yoon gars yi ñu ngi leen di ziar di leen bëggee di kontaan ci yéen di sàkku ci képp koo xam ni yaa ngi door a dab ci seen bi nga abonné ndax abonnement boobee dana tax lépp lu ñu mën di dugal ci seen bi nga mën ko am xam naa ni tey jii benn merengue du kontaan du bëgg ci match bi nga xam ni fële ca Santiago Bernabéu yi fële seenub équipe doon football Lille wala boog équipe bi la nga xam ni moo nekk Milan AC def leen faa fekk tëj ci leen ba lu nelaw li tax ma ni Carlo Ancelotti def leen ay pexe mu jóge ca équipe booba di Real Madrid ndax yaakaar naa ni si ngoom ba muy sàqami si ngoom ba moo dem mujj sàppi ñu gis ni remplaçant yi ci kaw bu ngeen xoolee Fede Valverde ak Tchouaméni ci bu tooy ñoom ñoo ñëw di remplaçant yi nga xam ne ñoo génn ki dugg du kenn ku dul Brahim Diaz ak Edouard Camavinga Edouard Camavinga logique waaye kii di Brahim Diaz ci côté càmmoñ bi loolee mënoon naa ñàkk ndax duo bi nga xam ne moo gënoon a baax ci diggante ñett ñooñee mu mënoon a commencé mooy kii di Vinicius ak ki li nga xam ne mooy Kylian Mbappé ak Rodrigo ci digg bi mu nekk ñetti attaquant bu ko defee Brahim Diaz ak ki xam ne moo nekk Sabès jërul woon a bu fekkente ne dugal nga Edouard Camavinga nga xëcc ki nga xam ne mooy Bellingham ci digg mi la terrain bi Fede Valverde nga bàyyi ko ci biir bi jàpp naa ni loolee mooy équipe bu mucc ayib bu Real Madrid mënoon a régler situation yi Fede Valverde moom mi nga xam ne sax Carlo Ancelotti bu fekkentoo ni jabari Fede Valverde ji jige woon na ko dana ko rëkk ndax yaakaar naa ni eh, ci message yi nga xam ne moom la am ci Instagram ak li nga xam ne mooy Twitter sànni na ko ay doj ci génn ki nga xam ne génn na ko footballkat boobee femme bi loolee waru ko waaye li waroon ki nga xam ne mooy Carlo Ancelotti defu ko woon ndax bal position yi eh, foo fekk foo dem eh, équipe bi la di Milan AC tëj ci Real Madrid ba nooy ñëpp la ko def